Merci, chers collègues. Guy Marie Sagna, Khadi Dieye se rapprochent. mbokk yi nuyu naa leen Diawoulé benn commune la mu ngi ci département bu Fatick. ñetti dëkk ñoo ci am courant ci fanweer ak ñetti dëkk ak juróom benn fukk amu Jula Kolon benn commune la ci Kolda ñeent fukki dëkk ak juróom-ñett amuñu courant ci commune boo xam ne mu ngi am juróom fukk ak juróom benn dëkk Boutoupa Camaracounda mu ngi ci Ziguinchor vingt quatre villages zéro électricité Enampor mu ngi ci Ziguinchor dix neuf villages ñaar électricité Niassia mu ngi ci Ziguinchor vingt cinq villages ñett électricité foo dem ci kaw ga foo dem ci Sénégal lii nga fay fekk monsieur le ministre des finance ndax am nga mbégte boo gisee askanu États-Unis di ñu may xaalis pour ñuy dugal courant ci suñu dëkk yooyu ndax am nga si mbégte du laaj du laaj ndaxte xam naa ne amoo si mbégte xam naa ni am nga si kersa waaye xam nga wax ji mooy lan nag ak Cour des comptes moo njëkk wax ne am na ay ministres yuy sàcc du man maa ko njëkk wax am na ay directeurs yuy sàcc te jamono jooju Boutoupa Camaracounda 24 village zéro électricité du dëgg du yoon boo ko fi waxee ñu naan xam naa sa papa sa papa lii la doon def xam naa sa yaay sa yaay fii la doon dugg xam naa sa maam sa maam lii la doon def mais nee naa leen depuis daaw lu ngeen xam ci sama pap wax leen ko saaga leen ndey sama pap wax naa leen ko daaw saaga leen ndey sama ndey wax naa leen ko daaw du ma tere wax ne bàyyi leen di sàcc alalu askan wi ba ay dëkk toog du ñu am courant wax bu yàqu la li ngeen di ñëw fii di jéem a instaurer une sorte de terrorisme qui ne passera pas saaga leen sama ndey wax naa leen ko daaw du tere ma ne leen euh, jawulee ñetti dëkk ñoo am courant sur 33 villages et 60 hameaux du dëgg du yoon moo tax ñu war a xeex guerre moo tax ñu war a xeex sàcc bu ñuy sàcc xaalis monsieur le ministre du dëgg du yoon askanu États-Unis di ñu may xaalis pour ñu yóbbu courant suñuy dëkk fekk ne ñun ñu ngi sàcc suñu xaalis du dëgg du yoon fekk ne président Macky Sall mu ngi teg concam ci dossier yi monsieur le ministre monsieur le ministre États-Unis moo ne ñu dindi la subvention sur l'électricité ndax lan ndaxte daf ñu may xaalis pour ñu dugal courant suñu ay dëkk wax leen ko sénégalais yi bu ngeen ko waxulee man maa koy wax askanu Sénégal États-Unis moo ñu may xaalis ne yóbbu leen courant seen dëkk ba pare pour ngeen jot ci xaalis bi foog ngeen dindi la subvention sur l'électricité moo tax courant bi cher dañuy sàcc xaalisu sénégalais yi ñu leen di may xaalis ba pare ne leen dindi leen subvention bi Sonko cinquième président dina jeex. La parole est à notre Fatoumata Dabo le suivant.